nitu ban ngeen yeen Ya affaire yi yalla bu fi ñewoon sax jiite Sénégal dina am ñi marché kon Sonko ñewul pour ne ken du marché dedet Sonko du yalla Sonko du yalla jambar la fàq teud mom ak jomay jomay Fay le président jomay Fay jambar fàq teud yu bëgg sen nation lañ luñu def doy nañu ñun luñu def doy nañu parce que xam nañ ils sont de bonne foi légui nak sen gennu suba wala ginnaaw suba leen genné taxul ñu bayi leen de dedet amul rew mu amul ay ñuy marché amul rew mu amul ñi nakarlu. Canada gi sa yo génnee ci mbéd mi gaay ya nga yor yore pancarte di di taxawaalu di di yuuxu di mer di matu Amérique bo fa démé chaque jour amna ay manifestation les pays les plus développés au monde amna na ay manifestation amul dëkk buma dem xana aljana yalla mo bind fenn fu amul benn manifestation aljana aljana kese la yalla bind té du aduna amul aduna fuy dox fu ay nit dajalo té du amul manifestation donc li ngeen di xaar noonu pour suba bu amee ay manifestations, Sonko non ils n'ont pas réussi à amuñu dool da Donc di kàcc dëkk bu am justice am paix des manifestations. Canada a des manifestation matin midi soir enseignants ont dañuy manifester Canada vit société civile a dañuy manifester wu dañuy donc li ngeen di jéem a c'est que vous nit yi di leen gëmloo ne ay suba bu amee manifestation wala amee manifestation ne ay ñi réussir ay kàcc yén yéen dàqu ñu wax munu leen fee wax ba waxa waxa waxa wax ba suñu njiit yi ñu jël jiital leen ngeen faxastal leen munul nekk da leen koy yëgal de munul nekk te it leen bàyyee ni ngeen ni ngeen ko tàmbalee de kon mu neex di xaayeen yéen yenee kumba am ndey ñun kumba ñun ngeen nekk ñu nekk fii ngeen ñuy toroxal di tëjaka di daggateeka di dammateeka di tëj di rey ngeen bugg fee nekk di saaga suñu président di saaga suñu premier ministre ngeen ne dañ leen di bàyyi noonu <laughs> bu bu ko président Diomaye lijjantiwul ñun dinañ ko lijjanteeg yéen dama ne maa ngi woo bépp patriote am leen fulla ak fayda suñu président bii gis nga luñ ci daj ay bakkana rot band yi ñu fi jëlee kat sàcc yi fi jëlee bu ñu taxawee suba taxaw ci télé di manqué respect Diomaye Faye Ousmane Sonko nga xam ne bu ñu leen laalee ñu ne justice amu fi ñun nañ leen ñuusal suñu bopp nañ am fulla mënuñoo daj lu ñu daj yëpp fal suñu président ak suñu premier ministre am ñu réew ñàkk ñànk toog ci télé di saaga suñu président ni mu leen neexee di saaga suñu premier ministre ni mu leen neexee di wax lu leen neex te ñoom buñ fi toogee ñun amuñu woon possibilité boobu may ñuy ko woon de ku ne président sa bët Macky Sall sa bët taq na suuf ñu dóor la ci kaso bi di ñu saaga ay nday di ñu menacé ñoom ñii ñoo ñu doon saaga naan forces à la loi donc nañu am fulla protéger suñu président le président Diomaye Faye protéger suñu premier ministre Ousmane Sonko buñ leen bàyyi mukk ci guerre bi te buñ leen bàyyi ak seen bopp. parce que ñii ñi ngi commencé ëppal ña ngay wër ci télé yi di continuer mel ñoom ñoo fi nekk nañ doon nañ ñu doon menacé ci jamono seen jamono ba léegi ñu ngi koy menacé ñi ngi nekk suñu télé yi di ñu menacé ñi ngi nekk suñu yi di ñu saaga ay nday ñi ngi nekk suñu yi di wax lu ñaaw. ñu ngi nekk suñu yi di wax suñu président lu ñaaw te ñun ñoom seen président buñ fi nekkee ñun kenn amul fit wax loolu lépp nag provocation ñu ngi ñuy provoqué ñu ngi ñuy pour bu ëllëgee bu bu justice amee comme justice bi day am justice dal seen kaw ñu taxaw ne non kon dëkk bi amul justice loolu la ñuy wër mais buñ leen ñuusalee suñu bopp <laughs> léegi ñu nekk nit parce que ay tàppet lañ Macky Sall amul benn benn militant boo xam ne mus na génn xam benn militant Macky Sall musul xam lacrymogène Macky Sall jël na pouvoir ba bu muy dem musul nokki lacrymogène militant euh, kii APR yëpp xamuñu lacrymogène waxuma laa cocktail molotov ñun nag dañoo mëkk cocktail molotov yi dañoo nand cocktail molotov ñoo ko créé ci Sénégal senegal Sénégal l'histoire retiendra que Pastef ñoo fi indi cocktail molotov ñoo la gën a dof créé suñu cocktail molotov ñoo ko fi njëkk kon xam ngeen ni ñoo leen gën a siburu xam ngeen ni ñun xam nañ kaso xam ngeen ni ñun xam nañ lacrymogène xet gu façon bu ne dóor ngeen ñu ko ñoo xeex ak yéen ba ngeen jël 48 milliards dem jëli ko armement pour jàkkaarloog ñun 48 milliards pour jàmmaarloog ñun fi opposition mo fi jeex kenn ne fi opposition ñu fi nek ñepp ay part ay parti sank lañ lañ APR tas na bu yag ben parti mo am senegal moy parti au pouvoir bi mom moy euh, Ousmane Sonko jomay fay le patriote c'est fini. rewande gi ngeen nekké nak ci télé dañ leen di fat légui nak légui ñol won leen ñol leen gëna ci buru won leen ñol leen dakh xex buñ leen ko nangul. buñ leen ko nangul ñu nekk ci média yi di ñu saaga ay nday di wax lu leen neex jàpp suñ président maa ngi dégg Omar Sow réew kile di di wax di n'importe quoi di saaga mais quand même jàpp même le président Diomaye Faye wax président ay Diomaye Faye ay Diomaye Faye ay Diomaye Faye bu dee Macky Sall mu muy raam mais qu'est-ce que c'est que ça jël doomum tuddee Macky Sall Sall taxaw mu taxaw Macky Sall Macky Sall président Macky Sall buy wax Macky Sall sax président Macky Sall lay wax. bu desee lu dul le président Diomaye Faye Diomaye Faye ah, Diomaye Faye ñii dañuy rew waay ñii lijjanti leen dafa jot nag wala ni ñoo leen gën a xamadi ñoo leen gën a duñ duñ sax bàyyi ñi yegg ci président bi. wax naa leen ko day palais de justice bam palais de la république bam fees dell président Diomaye Faye mënu fa dem waxoon naa leen ko avant ñu ne naa leen hôtel méridien la ñuy dem hôtel méridien la ñuy dem waxoon naa leen ko non day nañ duus ta lépp ñoom Omar Sow yii di wax ni ay day yu ponkal lañu yàq duus bi boo duggee palais do xat xat gi dafa xeeñ a xeeñ a xeeñ benn fan lañ fa def ñoom Diomaye tuuti ñu faatu président Diomaye day nañ fa day yàq lal yi mais ñi ñooy baadoo la sàcc nday alalu Sénégal bi këpp nday kees yi bàyyi fa plus de trente six milliards ñi ñooy doome xaram mais affaire yi war nañu ubbi seen gémmiñ di wax ñi dañoo war a ñuul nday day nañ nday pale bi lépp lañu day raatala day yi ci miir xasaw xunnu xunnu xunnu xunnu doxat nañ nday pale bi ba parfumé jabaru jomaay parfumé nañ ba def mënuñu ko ndax ay doxat joo xam ay doxatu ne da ko bandum yu xasaw lañ fa bàyyi ndayam dooma xarab yi ñoom Omar Sow day nday duusi ba ba ci kaw yàqatal lal yi parce que xam nañ ni dañuy dem bàyyi fanday ay matt ay ŋar ay yoo lu ne ci biir pale bi ba pare ñu wax day nday foofu laaboo nday si seen ci ci duusu pale bi ba pare di wër ci média yi di wax ay Omar Sow yi doome xaram bi Dakar seen nday la def yéen doome xaram yi day ngeen nday sañu pale bi doome ñàpp seen nday yi yéen waa APR kat seen nday la ñuy def léegi yàq ngeen day sañu pale bi Diomaye président ku ko bàyyoon rek këram lay dëkk mais euh, gouvernement bi ñoo mënul nangu mu nekk këram mu dem hôtel ngeen foog ne Diomaye Diomaye nitu la lijjantiwul hôtel hôtel sa ko sama saxaar gi lañ foo leen hôtel trente deux mille étoiles sax seen yoon new ci ñoom yàlla leen ñor Diomaye dafa lijjanti oh, fu jomaay àll bi moo ko gën a loo gis ñeleng gi moo ko gën a loo gis cere ji jomaay mëq ci cere ji moo ko gën a loo ci la màggee yaram bi cere la xam yaram bi laalo la xam laalo mbépp cere ñeleng loolu la yaram bi xam kon foo yóbbu jomaay safu ko boo ko yóbboon ba hôtel bu gën a kawe ci monde bi lijjantewu ko dafay lal si jaadam julli tudd fa yàlla dem yoonam rawatina Ousmane Sonko lépp ndax APR day nañ pale bi yàqte nañ lépp ñi ñooy doomi xaram waay yi Omar Sow demal nga nday day nga day ca pale ba Macky Sall day na fa ay onkal yoo xam ne ba léegi mi ngi fa ngacc taxu ko dem yàq ngeen nday pale bi yéen doomi xaram yi këpp nday caisse noire bi yóbbaale ko paaka seen ndey la ñu war a def yéen sénégalais ni am seen fulla ak seen fayda ñi buñ leen bàyyi buñ leen may benn marge de manœuvre nañuy tegal seen ci ci ci télé yi ñuy wëraalu nañuy dem tamit di tegal seen ndey ci télé yi amul débat ñoom jeexal nañ boo leen xamul nu ñu yàqee sañu pale bi xoolal ku romb ngeen tegal ndeyam ci waa APR ay day yu ay ay doomu buy day ànd ak ay doomu buy yu ñuul kuk day nañ nday pale bi ba ay sax di génn ci ñu ñooy doome xaram bu ñu ñàkkee lañ commencé di day nday pale bi fu lu ñu lekk ci àll ba ñëw daye nday pale ba ay day yu onkal yu am ay xooxu buy ay xooxu siddéem ay xooxu màdd xaw ma dañ doon wan màdd yi xaw ma ñi ñoo ñàpp seen nday waa APR ñoo kat seen nday waay ñi toppee nañ ñu mboorowaay Omar Sow yow kaay fi yow sa kat sa nday xaw yaa day day yu am buy parce que yéen a ngi koy werante foofu ñi naan yaa day day yu buy kenn naan kee moo day day yu am doomu si déemi kenn naan kee moo day day kee moo doon màcc maa da xaw ma kee moo day ngeen bi yan doomu xaram yi yàq ngeen sañu pale bi kenn mënu fa toog ay vrai sàcc ngeen dayu sàcc